alors c'est en tout cas à chemin waaw encouragé baax a baax waaye tamit euh, war nañu euh, marqué euh, mois de mars bi nga xam ne mooy weer ñu jagle jigéen ñi te war nañoo def ay activités yu méngoog noonu kon tamit war nañ cee gën a jàpp ngir mën a célébrer li nga xam ne mooy jigéen ñi te am nañ opportunité sax ngir def ko kon tamit daañ fexe ba nekk rek lu gën a inclusif ak tamit di wéy di inspirer génération bi nga xam ne moo ci nekk. ak tamit ci euh, li nga xam ne moo ñeel wàllum basketball la te loolu tamit lu am solo la. Euh, prochaine génération de joueurs et aussi surtout de de fans d'amoureux du basketball.